Mamadou Wane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo nuyu bi di nuyu aussi sa auditeurs yëpp. voilà Mamadou nga nekk euh, sociologue déjà ma lay interpellé si wàllum immigration irrégulière bi nga xam ne fi ñu toll nii mi ngi ñuy ëpp loxo euh, gis nga fële ca Wakaam rek euh, repêché nañ si géej gi lu ëpp dix-huit corps mu nekk situation bu doy waar sa xalaat si si mbir mi. man lu ma njëkk a xalaat mooy euh, d' abord nga may ma jaale Sénégal yëpp jaale famille yi euh, man nag xam nga même sur plan sociologique concept euh, ay émigration irrégulière bon man d' accord ma ci émigration immigration la bon régulière xam naa lu nga bëgg a wax xam naa aussi concept bi lal la bëgg a wax mais su ñu nangoo yenn concept yi dañuy nangu que ñuy ñëw nañ ci dëkk yi jariñoo ko ba mu neex leen ñu ngi continuer di ko jariñoo sur le plan économique ba pare tëj seen frontières yi di def li nga xam ne ah waroo ko def doomu adama diggante doomu aadama si waroo ko def. Mm-hmm. yow ma ku ñëw dugg ci réew mi respecté naa réew yi am seen politique ak yooyu te boobu aussi. ah doon politique ba nga xam ne ah day day jël doomu aadama ah yamle leen ah, war nañu xool ñoom ba ñu soxlaa ñëw si lu nekk lañ def teg nañu buubu jaam teg nañu lu nekk bon su ma continuer di wax loolu day mel ni maan ci passé bi pour ñëwaat ci wax yi nga xam ne lii koo gisee aussi lii am ñu ñoo toog suñu bopp soo buggee wax ni ñu ñoo toog suñu bopp nan la ñuy seetaanee mooy ñi nga xam ne ñoo yore nguur yi en Afrique ah suñu doom yi dem ba nga xam ne ah dem Europe aw ci géej gi mu wóor la ne su dee par exemple téeméer lañu tey na ñaar ñett ñoo ci mën a rëcc mu jaral leen ñu dem <laughs> lu tax mu jaral leen ñu dem lu ñuy wuti foofu soo déggee seen wax sur le plan sociologique da ngay déglu seen wax damay dem pour mën a tekki pour jàppale sama damay dem parce que pour mën a nan la tudd am liggéey euh, am xaalis dégg nga mun a faju yooyu ngay dégg ñu jaral leen lu nekk parce que lan la ñuy liggéey foofu condition yi ñuy liggéey condition yi nga xam ne condition jaam la condition liggéey yi nga xam ne moom la ci liggéey loo mhm. ñu ci bari ci ay tool yi ay yooyu lañ leen di liggéeyloo ou bien liggéey ba nga xam ne tubaab bi bëgguñu ko mais kooku mu jaral la nga ne da ci géej nar a dee loolu waroon nañ xool te lu tax loolu lu tax nañ suñu politique en ci jeunesse bi ci xale yi lan mooy suñu politique ci xal yi man ba léegi man xaw ma lan mooy suñu politique ci xale yi ñu yore nguur gi lan war nañ leen laaj lan mm-hmm. ban agenda la am pour les mm-hmm. lan am na ay projet am na ay lii ne loolu ñun Sénégal yi dañu sonn ci projet projet projet projet projet projet ba léegi mais tout le temps tous les jours <laughs> tous les jours demoon nañ ba fàtte sax affaire yu mel ni léegi euh, nan la tudd euh, xale yi gàddaayu fii di jël ay gaal di di dem Europe su demee bay ñëw di ñëwaat yow soo nekkee kilifa da nga war a toog yéen ñi ko si sëkk yëpp xale yi muy muy euh, état bi muy euh, société civile muy euh, parti politique muy syndicat yi muy association des parents d'élèves euh, ñu dem ci au niveau ci koñ yi am nañu cartographie xam xale yooyu ñan la ban profil la ñuy dem ñan la parce que loolu dem aussi il faut sur le plan sociologique ñu xam profil du migrant ñan la est-ce que Point E est-ce que Fann est-ce que Mermoz lañ jógee ci yan famille lañ jógee ban niveau d'étude la ñu am soo xoolee bu baax ci famille yu gën am problème foofu la ñu jógee. Mhm. soo gisee aussi seen dëkk ñoom mënuñu ci am baat soo bëggee kii manifester ñu jàpp tiire sa kaw. donc même si dëkk soo mënutul am expression mu xat amul dara li nga xam ne par exemple am na nga xam ne par exemple même ci seen weer damay dem Europe parce que Europe moo ëpp démocratie damay dem Europe parce que Europe bon gis naa ñaar u ñett ñu dem ci suñu gox. Ah, buñ demee tabax nañu ñu yóbbu nañu seen yaay màkk seen papa màkk ah, tekki nañu donc pour man man ku may njëkk a tuumaal mooy ñi ngi xam ne quand ñoo yore suñu réew ñu def leen conditions yi nga xam ne di leen fay ñu nekk ci ay bureau jox leen ay oto jox leen ay passeport y compris passeport diplomatique ñu war a xalaat tegal na ay politique économique su ma ne politique économique war nañ xool yan activité est-ce que ci pêche bi la est-ce que ci mbéy bi la xale yooyu ci ban ban milieu la ñuy sur le plan sociologique ban milieu la ñuy la ñuy la ñuy jógee ban réponse ak ces services sociaux de base parce que man dégg naa man man def naa ci ay enquête man ñuy ñooy wax dem naa waxtaan beaucoup avec des jeunes ñu demoon mujj nu yegg mais ay rescapés la ñu suñ leen nettalee <laughs> man ci sama bopp nekkoon naa nekkoon naa fa plus de vingt ans. Mhm. dégg possibilité ñoom dañ la koy wax carrément foofu soo feebaree da ngay faju mhm. nga nekk dëkk ba nga xam ne aussi ñu nekk ci kaw seen lépp Europe la doom ñaa ngi jàng Europe ku ci feebar Europe lañ lay évacuer ngay kilifa loo mën a nekk su <laughs> société ba nga xam ne kilifa yi ñëpp ñëpp laa la wax. Mhm. foofu la ñuy dem Europe mais bon xale yi dañuy jàpp seen représentation foofu mooy ajana bi su dee élite bi yore pouvoir seen doom foofu la ñuy jàngee am na xam ne yàlla ngeen baal ma parce que dugguma ci tooñ kenn ñenn am na temps suñuy wasin sax dañuy dem suñ buggee wasin dañuy xaar ba euh, war a matu dem ay États-Unis comme ça seen doom juddoo fa am nationalité mhm. ngay xool fii nit ki waa sama doom am na nationalité multinationalité les binationaux mais ñu ngi ko jël non c'est-à-dire dañuy def benn construction benn imaginaire autour de l'Europe ñi nga xam ne mënuñu dem comme ni ñu ko junjee immigration <laughs> régulière entre guillemets mooy nga dem déposer ñu jox la visa nga dem xale def nañ lu nekk tenté nañu loolu dem nañ bay jënd ay visa mm-hmm. dégg nga donc donc ñoom pour ñoom foofu euh, sur le plan psychologique sur le plan sociologique l'Europe dafa mel ni ajaman mm-hmm. donc rêve la utopie utopie boobu suñ ko dindiwul c'est-à-dire lu ñu wax déconstruction yo yooyu yaa ngi nekk ci communication euh, su ñu deful une déconstruction mais kan moo war a def déconstruction état dafa war de def déconstruction toutes les organisations aussi ci concours muy association yi muy daayira yi muy famille yi war nañu aussi muy école daara yi déconstruire valoriser nit ki parce que aussi c'est tant que par exemple aussi ñu ngi nekk ci ay schéma yaakaar ne réussite nit c'est uniquement économique accumulation des biens parce que tekki loolu la <laughs> il faut aussi ñu wane que tekki war nga doyloo ci àdduna ci le plan accumulation matérielle mais war nga jël yeneen valeur jub dégg nga doylu xam ne àdduna bi fii lépp lu ñu mën a am aussi fii lañ ko fii lañ koy bàyyi parce que loolu ngay wut ñu Europe soo demee ba génn àdduna dañ lay dugalaat avion indi la fii donc war nañ xoolaat prêcheurs yi wax hmm. mais ma nañu ci église yi dañu war a wax mais kenn du wax dëgg ba nga xam ne kenn du wax dañuy calculer comptabilité quinze trois cent deux cent hmm. bon dégg naa sax am na ñi nga xam ne disparaître nañu ba kenn xamul ba léegi hmm. tan yi rek ñun daal ñu ngi nekk fii tey suñu carte di bind di bind di bind <laughs> ministre de l'intérieur way démb ba mu fa demee waaw bon ñi nga xam ne trafiquant lañu dañ dañuy su dee ñoom répression état aussi c'est pas de la répression mais est-ce que mën nañu wax aussi Mamadou Wane euh, état euh, si côté sécurité dafa jàdd carrément le fait que mënul xeex mbir mi euh, amul sécurité bu doy xale yi ñu ngi jël gaal yi ba léegi maanaam est-ce que côté kaaraange bi aussi mënuñ wax ni dafa am fay complètement mais mais kaaraange bi dafa doyul duwul foofu rek du foofu rek même ni sécurité nit ñi demul fenn suñ sécurité pose des problèmes koñ boo dem nit ñi sont obligés wut ay ay kii seen propre moyen euh, sécurité wu bopp la maire mënuloo ko na nit ñi fi yëpp suñ koñ bi ñooy wutal suñu bopp sécurité sécurité ana sécurité état bi c'est une question que man man par exemple je me pose tout le temps mm-hmm. bon est-ce que aussi ci li ma yaakaar suñu état yu daw ñii mun nañ assurer sécurité est-ce que ñun am benn sécurité commune ñun état africain yi lu tax ñun si ñu par exemple politique de défense amuñu des politiques ba nga xam ne ah, comme ñu OTAN nu mu amee pacte de Varsovie amoon ko lu tax ñun en Afrique amuñu loolu amuñu loolu nga xam ne dañuy bokk ak Afrique du Sud bokk ak Maroc bokk ak Algérie bokk ak euh, na lu tudd Nigéria même suñ ko bokkul côté boobu même au niveau de la CEDEAO lu tax duñu bokk ñu tax man ñu Côte d'Ivoire ñu expliqué la day xool même bu amee naufrage ay médecins du monde ay ñooñu ay organisation humanitaire trois bi ah, euh, ñoom ñooy dem secourir bu nga gis par exemple pour ñu secourir ma xëy na man xëy na am na exemple mais man gisuma ko ñu ne kii ay organisation africaine la ou bien ay ñi am alal en Afrique jënd nañu ay bateau pour dem di secourir ak et cetera man gisuma ko donc pour revenir ci idée fayit la fayit la suñu politique de sécurité suñu géej gi mais da ngay xool da ngay xool tey tey géej gi pour suñu côte yi ñu aar ko ba nga xam ne préserver suñu richesse halieutique bi problème la Sénégal pour nga am tey jën c'est tout un problème donc pour moi ma tontu rek ci li ñu wax li man pour man sécurité bi doyul. Hmm. léegi war nañu xool aussi yeneen approche ci sécurité bi. voilà kon euh, Mamadou Wane maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi surtout. man tamit maa ngi leen di remercier aussi. Hmm. voilà. voilà may fàttali ni sociologue nga merci beaucoup si jàngat bu am solo bi Mamadou Wane merci beaucoup